wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokk yi ñuy seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaara di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu boroom mu yàggal ko fi te wéral ko di am mbégte bu baax a baax di ñëwaat ci seen émission boobu nga xam ne moom la ñuy wax gàggantiku te seen télévision MKTV bu Muxaddamatul Xidma bu Grande Mosquée de Touba di leen ko indil weer wu nekk ñaari yoon gàggante ko nag émission la boo xam ne dañ ciy ànd ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne dañ leen di indil suñuy laaj ci wàllu diine yoo xam ne dana yéwénal suñu dund ci àddina dana ci mën a gàggantikoo tamit lu ñu jariñ bu ëllëgee lu aju ci suñu diine ak suñu dunduk àddina euh, ñu ñëw fii nag ci Daaru Salaam ndaam ci kër Serigne Mbacke Abdourahmane di ngeen miin ko lool ci seen bi di mufti Eh, di ñu faral di labiré bu baax a baax ci suñu diine te ji nag ñëwaat nañ ngir indil leen émission gàggantiku eh, ni ma ko waxee eh, émission bi laaj yi diine lay doon xam ngeen ne du ngeen ñu daa topp ñu ngi woon ci buntu laab boo xam ne jeexalaguñ ko woon ba léegi waaye tey nag suñu émission bii nii dañuy ñëw ngir indi ay laaj yoo xam ne rotoon na fi ci biir koor gi muy laaj yi yoo xam ne ñoom mufti yi ñoo ko war a tontu kon yi ci desoon incha allah dañuy ñëw indil leen ci laaj yooyu ngir euh, sëriñ bi man cee tontu bokk yi nga xam ne ñoo ko laajoon kon sëriñ bi ñu jébale kàddu gi nga nuyoo. ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. naa bu nu sant yàlla borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa yëpp laa ñu ngi lay nuyu. mbokk yëpp. sëriñ Abdou Khadir ak sëriñ Cheikh Diop ñu àndal ci liggéey bi. waaye di nuyu mboolem mbokki daayiratu muqaddamatul xidma di rafetlu seen liggéey di siyaare bu baax Mawlana Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaan suñu suñu borom gën koo sàmm gën koo dëgëral fas yéene ànd ak yéen ci ni nga ko waxee ci liggéey bu am solo bi nga xam ne euh, xanaa bi mu ngi koy def amoon solo lool jullit ñi di leen laajee biir ci seen diine di jéem a tontu ay laaj yoo xam ne dañuy jëriñ ci suñu diine lépp nag ñu ngi ko baaxoo xamee di ko tënk ci. mazhabu imam Malik bi nga xam ne moom la ñu sëriñ bi dénkoon kon sëriñ bi jërëjëf. sëriñ bi euh, ni nga ko waxee léegi tamit jërëjëf it mbokk yi nga xam ne ñoo ñu nekkal ci technique bi di sëriñ Abdou bu Bousso ak sëriñ Cheikh Diop. kon sëriñ bi laaj bi nga xam ne moo njëkk mbokk mi dafay laaj ne lan la lan mooy jubluwaay bi nga xam ne sunu borom mi ngi koy wax ci aaya bi di aaya alquran bi ci maa yaftaxi llaahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha wa maa yumsik fala mursila lahu ah jërëjëf sëñ Abdul Ahad sunu borom de ci aaya jooju nga xam ne mi nekk ci suuratu Zumar sunu borom nee na lépp loo xam ne yàlla ubbil na ko ñeel nit ñi ci yërmande amul ku ko mën a téye maanaam daal lu mu nàmb ci jaamam dara mënu ko fam waaye nag lu mu téye it kenn mënta tax mu wàcc day dëppoo la mu waxoon ne wa yamsaskallaahu bi durrin falaa kaashifa lahu illaa huwa wa yurta bi xayrin fala radda li fadli yàlla su nammee ci jaam bi dara kenn mënta fànq nammeel googu lu mu nam ma joxub jaamam kenn mënta teedu agsi lu mu nam ma xañub jaamom kenn mënta tax mu agsi day wane ne mbir yi ci loxo yàlla la nekk mbooleem yi nit ñi def dañuy sabablu waaye yàlla mooy sottal moo tax jaam bi li ko war rek mooy sabablu na sabablu wut na sabablu moytu waaye joxe ak musle moom ci loxo yàlla nekk hmm. kon loolu euh, day day jàngale ne bu tawhid dëgëree jàmm bi ne na ci li mu war a nekk waaye jëru muy ragal dara hmm. ku lay xupp ku lay xëpp ci am ki lay xupp mënul teg lu yàlla narutoon hmm. ki lay xëpp mënti tax mu accès ci yàlla naru te laa nit du lekk lu dul wërsëgam nit nag mën naa dajale ci loxoom alal waaye la cay wërsëgam doo nga lay lekk képp ndax mooy li nga xam ne moom la yàlla nam mu agsi ci moom bu fekkee yàlla nangu mu agsi ci moom mën naa ñëw ba tiim ko hmm. waaye day romb jàll keneen na koy jariñoo hmm. loolu moom day jàngale nekkoon jaam ñi nañu dalal xel ci seen bopp ci ne seen mbir yëpp ci loxo yi seen borom la nekk li ñuy def lépp nag sabablu la te lu borom bee ko santaane hmm. da ngay lu bàyyee sa bopp yàlla jërëjëf sëriñ bi euh, suñu ñaareelu laaj euh, bokk bi dafay laaj ne lan lañ war a jàng ci jullik fajar maanaam ñaar ay fajar lu ñu ci war a jàng waaw ñaar rakkay fajar xanaa ginnaaw faatixal tafi waaye ne julli gu ni moom lañ ciy jàng mhm. ak ci masab may dañuy wax ne am na ñuy wax sax ni faatixe kese lañ ci jàng mhm. waaye sax na nag ne des na ci jàng faatixe ak saar yu gàtt mhm. sax na ne doo islam jàng na ci faatixe ak kaafiruun ak faatixe ak lixlaas ak sax yeneen aaya waaye am na nag loo xam ne eh, imaam Ghazali rotal na ko wax ne ay boroomi xam-xam ay nit yàlla wax nañ ne ku saxal di ci jàng fatiha ak alam nasrah ci rakka bu njëkk bi ak fatiha ak alam tara ci rakka bu ñaareel da mucc ci oh. safaan yu bari ñoom ñu ko wax nag waxuñ ne sunna la waaye lu luñ tajriba la di ko def ba gis ne mën na leen musal uh-huh. daqonti wut jàng fatiha ak saaru ndax saar yu la uh-huh. xaye nag sunna ci boppam waxut ne nañ jàng alam nasrah ak alam tara uh-huh. waaye nag ay nit ñu baax yàlla wan na leen ñu seet ko natt ko ba gis ko ne ko ci def da nga mucc ci yu bari waaye ku ci jàng faatee kese it baax na ku ci jàng faatee baax na ku jàng faatee ñaari alam bi baax na. Hmm. jërëjëf sëriñ bi euh, kii dafay laaj mu ne lan mooy nisaabu asaka ci lu toll ak ñetti million waaw ñetti million asaka moom saa xasee mat nisaab. Hmm. ni ñuy génne asaka mooy deux virgule cinq pour cent bu dee xaalis moom la ñuy génne. Hmm. yoon bi gën a gàtt ngir génne asaka nag mooy alal ji divisé ko par quarante. somme bi nga am nu mën a toll divisé ko 40 3 millions boo ko divisé woon 40 75 mille la lay jox. 75 hmm. mille la lay jox kon ku am ñetti millions di génne sax fukki junne ak juróom mooy. as junne ak yoon bi gën a gàtt wax ni alal ji nga am nekk na nekk fanweeri million na nekk juróom fukk téeméer divisé ko 40. lu ma jox rek loolu jox mooy asaka ji nga war a génne. Hmm. jërëjëf sëriñ bi kii dafay laaj mu ne képp ko lan mooy atteb ki nga xam ne dafa gént ba noppi. sangu julli ginnaaw bi mu gis sobe ci ci ci ay yéreem waaw bu jàppee ne sobe soosu day ci ci ci ba muy gént la la feeñ mhm. xam nga li ñuy tuddee taxaaratul xabas mhm. mooy nga laab ci sobe ci sa yaram mhm. sa yére ak barab bi nga taxaw di julli loolu charte la ci wérub julli gi ci kaw nga fàttaliku ko te mën koo dindi fekkee dafa julli suba la mu yeewu sangu daal di julli suba bam naaj door a gis ne yéreem dafa taq sobe hmm. dara waru julli ga baax na te du ko baaxul ndax fàtte wala ñàkk xam moo tax mu julliwaale ko bu fekkoon nag moo ko tey gis na lii sobelee mu lànk julliwaale kon julli ga baaxul hmm. bu fekkoon nag da koo fàttaliku te waxtu yu jeexagul sopp nañ mu julliwaat ci misaal ku doon bëccëg la woon mu julli tisbaar ba noppi xool gis ne yéreem taq na sobe na dem summi ko wala mu fóot ko te julliwaat julli googu waaye bu waxtu xasee jeex moom santaan sant santaane baaxu ko lu bu doon julli suba ba jant jant fenk mu door a gis ne yére yi mu doon jullee suba ah. taq na sobe waxtu suba jeex na te julli baax na ko baamoon ah. jërëjëf kii dafay laaj mu ne lan mooy atteb euh, ku góor ki nga xam ne dafa njaaloo ba fekk takkoon na soxna ba wàcc ko waaw nit bu njaaloo te ah. sañewu mhm. te sañewu li charia santaane mooy dañ ko rey sañowu nag sëñ Blaat uh-huh. mooy masa jaar ci takk soxna bu uh-huh. jaar yoon ba jaxasoo moom moo xam jamono yi ngay daf loolu ñaawtee fii fekk na nga nga yor soxna sa wala yoratoo ko ci uh-huh. waaye ku masa sañowu ku masa takk soxna takk gu jaar yoon ba soow moom muy góor gi mu jigéen ku ci njaaloo dañ la war rey ateb sare mooy rey bu nekkee foo xam rey amu fa nag loolu passé la ci nit ki mu tuub dellu ci boromam ndax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ci yërmaande ñu bari moo waxoon ne ñaawteef yi ku ko defati yàlla suturaal la na nga suturaal sa bopp te tuub waaye ku ñëw fi man wax ma li nga def nag naa dawal ci sa kaw àtte bi day mel daa bëgg sax ku def ñaawteef mel noonu te kenn la bul ñëw naa ko maa def naa nga ma dañ ma rey nga ba nga nga nga ne cell te tuub tuub gu sell tuub gu sell nag sa blaat mooy li am solo mooy leen li nga def waxtu wane dalay naqari sa xol bul toog fenn di bàkkoo naan man samay samay damaa sippi léegi waaye waaye samay jaar jaar naan hmm. koo gis kuy wax loolu tuub ku naan ah, bu mu amaatee occasion defaat ko day dalay naqari la weesu nga rëccu la nga fa nga fa nga jaaroon fas yéeneen li des sa sunu sa dund dootu ko def hmm. sëñ Ibn Abdou Mbacke wax daan na ko misaale ne tuub gu dëggu day mel ne jog ci xal hmm. ba nga ciy joggi te yow am rëcc waaye jublu woon teg sa tànk ci xal ba ci sa na ci sànq ne tegg da nga ko daan teggi hmm, te doo ko ci tegaat mukk rek réccu nga loo teewoon xol ah. suuf hmm. te it doo ko fas yéene hmm. tugg mel ab jaam bu bàkkaar rëy rëy bu ko tubee yàlla jégal ko mel ne mësu def bàkkaar kon passé la waaye nag ñaawteef la yoo xam ne nag lu mat a moytu la waaye daal li ci war mooy bu dee ku sëŋewu nañ xam ne sëŋewu du nekk ab célibataire waaye ku mësta jaar ci takk soxna kooku mooy moom lañuy wax bu njaaloo dañ ko caw téeméeri yar bu dee góor nañ ko caw téeméeri yar yóbbu ko ci àll bu sori tëj ko fa at bu dee jigéen nañ caw ko téeméeri yar waaye duñ ko génne bu fekkee nag mas naa sëgee mooy mas naa am soxna moo xam bi muy njaaloo yi mi ngi yor soxna sa ba tey wala yorut soxna waaye mas naa am soxna ba jaxasoo moom bu njaaloo te sariya da santaane ñu rey ko jërëjëf sëriñ bi eh, laaj boobu leer na kii dafay laaj Euh, gën ñaan daal moo gën ci ñu ñaanal ko sahabatul kiram sunu borom de waxoon na ci alxuraan ne walladina jaau min baadihim yaquluun rabbana xfir lana wa li ixwanina alladina sabaquuna bil mm-hmm. bi mu taggee sahaaba yi da caa teg ne ñii ñëw seen ginnaaw mm-hmm. nga nga xam ne dañuy ñaanal ña jiitu woon lu ñu leen di ñaanal njéggalu yàlla kon day mel ne lépp lu ñu ñaanal ab jaam njéggalu yàlla ci gën mm-hmm. donte nag borom xam-xam dañuy wax ne saxaaba yi ñaanal leen ngërëmul yàlla sopp nañ ko lool. ndax yàlla gërëm na leen waaye nga ñaanal leen ngërëm lu yokk dolli baax na ci ñoom da leen mën na tax ko yàlla nangoo dolli leen ngërëm te loolu ak cofeel la si diggante ñoom te it yow da lay dolli. Uh-huh. yow mi ñaan da lay yokk kon sopp nañ di wax ci ñoom radiyallahu anhum joo xam dañ koy jublu ñaan. Uh-huh. xam nga radiyallahu anhu mën naa doon ñaan mën naa doon xabaar xabaar mooy lan yàlla gërëm na leen. Uh-huh. fi'lan yàlla gërëm na leen wax na ko ci radiyallahu anhum wa radu an waaye yow na nga wax ko jublu ci yàlla na yàlla dolli leen gërëm ndax buñ ci wolof ma ngi ko doon firee yàlla yàlla dolli ndax gërëm na leen ba noppi kon ñaanal leen gërëmul yàlla sopp nañ ko waaye ñaanal leen njëggalu yàlla it ndax euh, njëggal moom lu mu gën a lu mu gën a dolli ko rek day gën wax wàññi dara jërëjëf sëriñ bi kii dal bokk mi nee na bëgg na nga leeral ko lan boo ko doon xaymal diinaar daal ci suñu xaalisu CFA bi nan lay toll. waaw xam nga seen la dinaar. Mhm. ñeenti grammes mhm. yi or la. ak kaar. mooy benn dinaar. benn dinaar ñeenti grammes yi or la ak kaar. maanaam ñeenti grammes or ak kaaru gramme. Mhm. gramme bu ñu xaaj ñeenti xaaj. léegi loolu bëgg bëgg xam ci or dafa day day day day day tuxu benn barab. jamono yi mu toll mën naa wax ne tey jii gramme or mi ngi jar trente six mille euh, six cent vingt franc virgule tuuti. ci benn gramme yow oru vingt deux nga wax wala wala dix huit lii bu ñu koy wax vingt quatre la ñu war a wax. vingt quatre ah. mooy or bi nga xam ne xaalis la or bu sell. Hmm. bu raxul dara yi ci des yëpp or leneen la or bi tax ñuy wax nag mooy vingt quatre. Hmm. or boobu nag trente six mille et quelque jar. benn dinar bu nekk benn dinar bi nga xam ne kon benn gramme bi. benn gramme bi kon boo ci soxlaa ñeenti gramme ak quart. Uh-huh. dana mat cent cinquante cinq mille six cent trente sept francs. Uh-huh. kon gra ab ab dinaar ñeenti gramme or la ak quart. Uh-huh. léegi nag benn gramme or fi mu nii moo jël trente six mille it jàpp naa lu ma di topp la waxtu ne di xam li gramme or di jar. day dañ koy soxla ci yéeg ko wàcc. dañ koy soxla ci. bu ñu mayee soxna ci masab Maalik daa am lim boo xam ne kenn waru ko yées hmm. mooy rubu dinaar moom mooy benn gramme ak fumunu gramme faaw ceen gi warut yees yées loolu hmm. naka noonu dañ koy soxla ci asaka ku am ñaata moom la asaka war ane waxtu wu ne kon boo jëlee njëgu gramme bi multiplier ko par quatre-vingt-cinq kon loolu fi ne cen dana jege quarante mille xanaa kon dana ko jege waaw bu tegalut sax kay hmm, déedéet maanaam aqallu sadaq ah, li gën néew li gën a néew nga xam ne ab sëy du fasu te hmm. waaye mën na ko hmm. mën na ko waaye nag li gën a néew moom mooy loolu hmm. jërëjëf sëriñ bi euh, kii daal dafay dafay dafay wax ne ndax wér na li li ñuy wax ne daal maanaam barke ab doom mi ngi ci topp goo xam ne yaay daf koy topp bàyyi bàyyi kim jur wax ne ñoo lënkaloo day man du yomb ci man waaye nag xam naa ne moom baaxuk cosaan hmm. dana jeexital ci bànqaas wa kaana abuhuma saalihan jane woon ci suuratul kahfi loolu da koy dëggal hmm. ba xudar di liggéeyal gone yooyee hmm. bokkoon na ci illa ji mi seen bàyyi ku baax la woon kon baaxuk bàyyi ga moo leen jariñ ñoom kon baaxuk wayjur mën naa jeexital ci doom waaye nag ndax topp ndax topp yaay gu muy topp bàyyi na fekk muy topp ku tegu ci yoon ci la diine sa yaay joo xam ne am amya ni ñu koy waxee lay topp borom këram. Mm-hmm. lu ko borom këram digal bu baaxee bu baaxul bu def ko jàpp naa ne loolu ci gërëm nekk te suñu borom moo waxoon ci làmmiñu Yonent bi islaam ne laa taa'ata li maxluqin fi ma'siyatillah mm-hmm. deesul topp mbindeef ci mooy yàlla mm-hmm. sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu bi muy dénk sunu maam soxna Penda Diop di ko topp toppaloo sa borom kër da ca nekk zawjika zawjiki taqi gis nga sa borom kër bii nga xam ne dafa am taqwa lañ la topp loolu uh-huh. loolu da lu ma ci bataaxee borom kër bu tegoo ci na mu war a mel bu ko borom soxna toppee na mu ko war a toppee mën nañoo jàpp ne njabootam dana barkeel uh-huh. ndax ngi ci nga ndigalu yàlla te yàlla ku ne ci ndigalam ne du sànq jëfe aji rafetal uh-huh, nañ ko jàpp waaye nag na doon topp ko tegu ci yoon jërëjëf sëriñ bi kii daal dafay laaj ne ndax dagan na ci jullit bi mu muy teew ci e, ci xaritu chrétien buy céetal boo xam ne dañuy dañ koy fas wala dañ koy takk ci biir église yi waaw jëm ñi teew ci église lislaam terewoo ko lu dul ne hmm. da ngay bokk ca la ñuy def te mu doon loo xam ne jaamulul yàlla hmm. wala euh, lu ñuy bu fekkee la boo fa demee jaxasoo bu dëgëru dafay am hmm. loolu bu doon ay julli sax dañ koy tere yëpp fooy dem góor jigéen dafa jaxasoo anam gu dëgëru dañ lay tere dem fa waaye bu dee nag teew goo xam ne àndut ak benn ci yooya terewuñ ab julli mu dugg ci biir église uh-huh. jarul dugg terewuñ ko uh-huh. teewe mën naa dugg teewe takku xaritam ndax takk moom uh-huh. mbirum mbirum aada gën a jege ci du diine joo xam ne ndax lislaam mi mayee nga mën a takk ab chrétien ab chrétien boo koy takk ñoom ñoo la koy may bàyyi ma la koy may wala église bi may la ko waaye sa ab jullit du la may ab chrétien ndax yilifu ko jërëjëf sëriñ bi kii daal dafay laaj ne man moom daal am na lu ko jaaxal ndax lan mooy àtteb jigéen ñi daal jigéen ñi muuru ñuy tàllal seen tànk yi xam nga sëriñ Abdoulaat fii aada ji dafa rax ci diini ji hmm. diine day ñëw fekk fi aada te aada dafa bari doole ci aw xew xeet hmm. diine ji mës ñëw xeex ak aada ci la boobu waaye am ca ndam cent pour cent yomb da da da ngay bëri ba sonn hmm. bokk na ca nag tëñ ji dañ cee laxas loo xam la ciy diine tut la xam nga sëñ bi laa tëñ ji mooy lan tëñ ji ci biir idda lay nekk idda goo xam ne ak faatoo ko waral soxna su borom këram faatu day iddawu ñeenti fukki fan lay toog yoo xam ne du fanaan àll fanaan fu dul añ màtt mi li muy foor foor nit ku waajoon ba ba aj dese ko borom këram faatu dañ koy tere mu dem Seydina Omar dafa daan dëpp jigéen ji dem ba ci yoon wi seen borom koy faatu day dëpp ne dem leen muuru ci te mu hmm. tëj warul waratu leen tukki hmm. xanaa nit ki dem ba àgg màkk hmm. ñu yëg ne borom ko a faatu na kooku moom duñ ko def dañ mu àggale te sàmmoon teg xam ne ci iddal nekk idda idday faatu nag moo ànd ak tëj tëj mooy lan ñaawru bul takk ay takkaay bul xeeñoo gët bul sol yére yi ñu taaroo lu dul lool nag yàgg jigéen ji jigéen julli ci seen yam bu dee jigéen joo xam jàngalekat bu xëy mën naa dem ci daara jàngale bu amee soxla marché mën naa xëy dem fa fanaan àll du def du tukki du takk ay takkaay du toilette du puudaru yooyu ñu def daal nga ko taaroo wala xeeñoo ay gëtt yu neex yi mel du ko def loolu dong lañ ko tere. lu dul loolu rek mën na ko def. bu nekkee biir këram bi nag kenn forcé wu ko ci takk boppam am ñoo xam ne dañuy dañuy jël dégg naa ci mbuum góor gi laxaw seen bopp nga xam ne guddeeg bëccëg ñu ngi koy laxas. Hmm. kenn santu leen loolu seen ci seen biir kër. muur seen bopp nekkul nekkul farata muur bopp bi ñu ngi ko sant julli bu jigéen bi su su nekkee ki jàmbur waaye bu tawee ki njabootu biir këram bu ko neexee def bopp neen kii muur ak ki muur la jox na ñuy loolu moom sooy génn wala gan di ñëw te doon jàmbur moom la ñuy sant na nga def li lislaam santaane muural li nga war a muur uh-huh. ay ñun nag tàllal tànk yeeg yor paaka yeeg naa la booy julli doo jàpp say bëti woom waxtu sàng du la fekk ci kaw bu laal ak uh-huh. yooyu yëpp ay aada yu jaarul yoon te metti loolu ñu teg ko seen loolu ñu teg si moo tax nag nit bu xamee noppul mhm. ñi laa biire mbokk yi daal mhm. yu mel noonu ku mu gaarate na nga laaj ko xam mhm. mu wax la ci lislaam santaane nga yem ak diinu yusrun sa yeblaat la su yénub salaam waxoon diin lu jàppandi la li ci jafe lépp ñu na moo tax yooyu it mat na am solo loolu ñu di ko bàyyi xel bañu topp aada yeeg màggat yoo xam ne ñëw naa la kuy tënj lii ngay def ak ñii ngay mel ak da ngay def néeg ak taalal tànk yi ñu wax kenn du la jox xaalis ak <laughs> am na ci loo xam ragal faatu la jàpp nañ ne boo ko joxee xaalis boo léegi faatu ci wàllu la te kenn kenn du faatu te ab diggam jeexul mhm. mënta nekk mhm. kon loolu it jàpp naa lu am solo si biir julli ñu war ko bàyyi xel daal mhm. noppalu ci aada yi metti ñu tam sëriñ bi noon na bokk na ci warte fi sëriñ yar taalibe ci xam-xam ak jaamu yàlla waaye tàggale ko aada taquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aada parce que yi ak ñu def ci ay ci ci ci ci ci dëj yi ci la bokk. am ci mm-hmm. bu ñuy tëj. Mm-hmm. waaw wutal la heure boo xam ne ci ngay sol nanga ak am ku leen war a solal ak yëpp nam daan soloo mën na koy solo fu mu daan dem tamit liggéeyukaay bu daganoon. Mm-hmm. mën na faa dem waaye nag bu mu fanaan àll bu mu tukki bu taaru bu mu takkee takkaay loolu lañ ko am ñoo sax dañ dañ leen di aaye salle de bain yi yu rafet yi daanaka ñoo xam gis ñu wutal leen. beneen feneen beneen néeg ci yooyu yëpp yi la dugg sëñ bi laat néegam moom moomoon muy néegam bu amee wanag mën na fay def lépp hmm. waaye daal na mooy yi rek takkaay yëpp amoon ak yu ñu taaroo daal hmm. yëpp na ko denc moom ay ñeenti weer hmm. te ma xam ne jaamu yàlla nag yàlla ko santaane ko boo ko defee dañ ko am bi eh, kii dafay laaj mu ne ndax maamoom dafa war a baamu ci su fekkee ne Eh, imaam bi ko doon jiitee dafa fàttee jàng fatiha eh, mu toog diir bu yàgg doog a fàttaliku ne imaamam kat moom jàngutoon fatiha ndax moom daa war a baam xam nga maam moom jàng fatiha waru ko mhm. koo sob muy jàng fatiha ko saar bu ilimaanam di yelu moom bu ilimaanam waree sujjóot xabla salaam mhm. fàtte ko ba sëlmal bu yàggee moom maamam jullee mbaax ilimaan nag bu fekkee xabla salaam bi bàyyi ñetti naa ko waraloon bu yàggee julli gi day yàqu su ko matu moom jël jégal nañ ko te xam nga jàng fa fàtte fàtte ci benn rakka sëñ blaat wax yi wuute da ci am ci mësat waaye ji ci gën a lëng mooy su ko fàttali woon euh, day sujjoot xabla salaam ba noppi julliwaat ndax wuute daa am ci fàtte ndax farata la ci rakka bu ne wala farata ci li ëpp ci julli li lëng ci masa bi mooy farat la rakka bu ne waaye dañoo bàyyi xel ñi wax ne du farat ci rakka yëpp kon bu amee benn rakka boo ko jàngul hmm. du tey julli ga baax na da nga koy hmm. sujjóotal xabla salaam mu jeex ñu ne nañ xel wax jooju kon sujjóotal xabla salaam waaye bàyyi xel wax ji gën a lëng muy julliwaat kon day mel ne ku mel ne kii julliwaat a koy waat rek ginnaaw sujjóot bu yàgg na du sujjóot day julliwaat xabla hmm. salaam moom da nga koy def euh, ci biir julli gi bu sëlmalee na mu yàgg bu bu sëlmaloon daat ci saa sa fàttali ko day da koy soppi baax salaam te julliwaat bu yàggee nag xabla salaam gi kontutu bu dee maamam moom maamam joom julleem baax na julleem baax na ah. sëriñ bi euh, kii dafay laaj ne daal euh, naka lañuy ñuy sëlmale ci julli la bëgg nga wax ko ko ba noppi ak lan mooy atteb euh, dolli gi ñu ciy dolli taxaalaa wa barakaatuhu ci sëlmal gi ndax loolu maag sëñ jili mi dem nañ ci benn dëkk boo xam ne dama doon jiite bi ma ne asalaamaaleykum ñëpp dañoo toog di ma xaar ngir ma wax wa rahmatullahi wa barakaatuhu mm. léegi rek loolu la bëgg nga leeral ko. waaw xam nga ci bu Malik moom. Mhm. lii génne nit ak julli mooy asalaamualeykum. Mhm. kese xam na yeneen ngir yoo xam ne ñu naan la asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Mhm. ci sa wetu ndeyjoor daf ko di wetu càmmoñ. waaye ci masab Malik sëlmal bi lay génne ci julli benn sëlmal bu dee ilimaan. ak kenn kuy julli benn yoon ngay sëlmal yéene ci ñaar. génne ci julli ji ak ñaanal malaaka yi nga àndal. bu dee maamoom nag day sëlmal ñaar wala ñetti yoon. dana sëlmal geesu nday jooram yéene ci génne ci julli ji xool ci kanamu ne asalaamaaleykum yéene ci ilimaanam hmm. ndax ilimaan bi ne asalaamaaleykum moom bu dee ilimaan day yéene waale euh, mbooloo bi hmm. waaw day ñaanalaale day yéene ci sëlmal bi génne ci julli gi ñaanal malaak yi ak maam yi ci ginnaaw hmm. boo defee maamoom yi dañu bëgg ñu delloo ko nuyoo bu fekkee am na ku la féete wetu càmmoñ te am ci julli gi lu mat ab rakkaay bëgg nañ nga ne asalaamaaleykum la waaye yokk ci warahmatullah wàññi dara ndax bu ngeen asalaamaaleykum julli jeex na ah. loo ci yokk rawatina loo xam ne ak ñaan la dañuy jàpp ne ñaan ginaaw julli la dara nekkul waaye nag ci masab bi moom foo xasee wax asalaamaaleykum julli jeex na waaye dañ lay wax na ne la boo doon roy ci koo xam ne day wax salaamaaleykum warahmatullah barakaatu ñaari yoon mm-hmm. yow mu nekk malik yi da koy nekk ba mu àggal waaye da nga daal di salmal foofu dañ foofu da ngay da ngay topp masabu sa imam bu mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah nga waaye bu fekkee nag ne yaay ilimaan ji moom asalaamaaleykum benn yoon lañu la sant ci mosal boo ko waxee jël gi mat hmm. nit ñi nag xam nga fenn fu ne lañ tàmm am na ñoo xam ne moo tax ñi tàmm asalaamaaleykum kese boo nee war a sax xaar hmm. dañu daal di sëlmal ñoom ah, loolu mbaa doon sart ci ki ko xaarut julleem yàqu ci maamam ah, kay julli gi moom bu xasee mat asalaamaaleykum julli gi mat na hmm. waaye nag liñ gën a bëgg nag mooy nga nekk ba mu sëlmal waaye du doon njëkk a sëlmal sa imaam ci boo xaarut asalaamaaleykum waxasee jàll sëlmal mat na kon li ci sa ak mottali la waaye sëlmal bi mat na moom ah. sël nag lay gën moom mooy yow nga roy sa ilimaan nit bu matal nga door nga door a sëlmal mm-hmm. waaw ndax maamam xam na ne moom bu njëkkee sëlmal imaam day day xam nga imaam moom ñetti yëf wala boog ñaari yëf lu mat a bàyyi xel la mm-hmm. kàbbaru armal ak sëlmal mm-hmm. boo ko njëkkee def sa ilimaan wala ngeen defandoo ko sa julli yàqu na loolu moom dama taxam la kàbbaru armal ak sëlmal ku ko defandoog sa ilimaan wala nga njëkk ku ko def wala sax sa ilimaan njëkk laa tàmbali waaye nga dab ko àggale àggale nag moom wala nga njëkk ko àggale sa gil yàqu ne seen sëlmal gi day xaw bala buñ bala ñoo jeexal ci maa ngi ñëw <laughs> bu dee ci des hmm. yëpp jiitu sa ilimaan araam na tolloog sa ilimaan sib nañ ko hmm. sib nañ nga njëkk koo ko wala nga njëkk koo sujjoot wala nga njëkk koo siggi hmm. day araam waaye dafandoog yi dañ koy sib kon dañ am bàkkaar julli ko du yàqu waaye ñaari yi moom da yàqu julli moo tax fuqaa yi dañuy wax ne bokk na ci dëgg fiq baral kàbbaru armal akub sëlmal gaawe ko waaw gaawe ko waaye bu fi nekk naan allahu akbar xam na ñoo xam ne boo ko defee dañoo yàkkamti yàlla leen bindee noonu bala ngaan allahu ji sori ñoom kàbbar nañu nag seenu julli yàqu tàmbaleegul hmm. asalaamaaleykum léeg-léeg nga diri ko ba am na koo xam ne moom moo lay njëkk a sëlmal sëlmal na bu yàgg du yàgg julleem yàqu uh-huh. moo tax dañu bëgg ne ñaar bokk na ci dëgg fiq imaam bu mu dugg ci mihraab te liqaam bi jeexut buy kàbbar kàbbar almal na ko baral buy sëlmal na ko baral loolu dañuy wax ne min fiqhil imaam uh-huh. ñett yooyu uh-huh. jërëjëf rek taxaw ci digg ba daaneen liqaam leen ne ci sàppa yi ba waroon baral mu door a génn jërëjëf sëriñ bi euh, kii dafay laaj mu ne ndax saxaaba yi bisu badar xam nga ne xare badar euh, nee na ci koor la woon mhm. mu ne ndax saxaaba yi wooroon nañ ndax wala tamit ndax amoon nañ ngànt ci bis bis boobu woor amoon nañ ngàntul ñàkk woor ci bisu badar ñoom saxaaba yi waaw xam nga euh, xare badar mi ngi nekk ci atum ñaareel ci gàddaay gi mhm. ci fukki fan ak juróom-ñaar mhm. xam nga at moomu ci lañuy ca ca baraxlu wa ca la ñu farataal koor ci barax loolu lañ farataal koor. bi Ramadan dikkee bi ñuy dem di xara ji euh, amoon nañ gàntul dog ndax ci ab tukki lañ nekkoon. Uh-huh. te ci tukki euh, sañ ngaa dog doon te yëpp islam noonu alxuraan noonu na wa anta uh-huh. waaye Seydina Omar nee na am na ñaari xare yoo xam ne xare nañ ko ànd na yontu ci koor dañoo dog muy fatahu Makka ak ghazwatu Badr. Uh-huh. loolu day dëgëral ne dañoo ndax am na ci boo xam ne daa wax ne day eh, jege nañ noon bi ku mën a ku mën a dog man ku bëgg a dog mën ngaa dog mu mel ne boobu daa daa forcé wut kenn ah. ñii dog ñii woor ah. waaye bañ ne suba la ñu alak ñoom nag nag dog leen hmm. day ci dégg ne bu fekkee da war a jàmmaloo sam noonu boole ko koor loolu mën naa kattan ngi day des hmm. te bu musaafir lañ boo nekkee musaafir sañ ngaa dog sa koor kon day mel ne li ëpp ci saaba yi dañoo dogoon ngir mën a jàmbal noon bi waaye ndigalul yonent bi it sallallahu dafa mel ne sëriñ bi waxtu wi dam nañu waaye laaj bi ñu lay jébal mooy laaj bi mujj euh, kii daal dafa bëggoon nee na nga laa labiré ko euh, bayit yi nga xam ne jàpp naa ne ci jaawartu la nag lan la ci sëriñ bi jublu bayit yi mooy xaabat xulaatiya mahal xussaadi musammani xustu bila kasaadi wa xaaniya bihi subura tijaarati ladayhi lan tabura Ah, ok jërëjëf si waaye bala maa ñëw ci laaj boobu laaj bi weesu am na ci loo xam ne jàpp naa ne ci laaj bi la naka la ñuy sëlmale ci julli hmm, waaw xëy na nit ñi am na ñoo xam day gis ñu naan nii seen loxo hmm. bu ñuy sëf faaw ñu ne nii loolu nag wax dëgg yàlla mën hmm. ma xam daal mooy teg say loxo bii nga def nii booy booy booy booy bu jeexee nga ne asalaamaaleykum bu kum ci daanu te sante nga gees soo tëg nday jor waaye nga lay yi moom daanaka jàpp nañu bu ko deful sëlmal bi. bokk ci julli wax dëgg yàlla. loolu bokk ci ay wax sëlmal la ay wax la kàddu yooyu nga wax moo lay génne ci waaye nag dañoo sopp boo koy def nga geer sa wetu nday joor. Mm-hmm. buy buy daaneel ne tàmbali bi sax ci xibla la. booy nuyu sa ilimaan yi nag kenn newul la nga naan nii maanaam junj gi nga junj jublu ci sa ilimaan loolu ci sa xol lay nekk yow imam maa yow lay nuyu yow lay yow lay ñaanal ci nuyoo bi ay waxuñ li ngay joxañ ngir ilimaan xam ne moom ngay waxal. loolu mm. santaane bu ko defee bayit yi noonu ko waxee ci mu ngi ci jaawartu euh, liñ jàpp maanaam yi sëñ bi dëgg dëgg lim jublu moo ko xam waaye mhm. xaabat xulaatee xaabat mooy sooy na seen yaakaar tas na ñan xulaatee sooy mhm. ñoo bañ bañ daal seen yaakaar tas na ndax lañ ma doon yéene ñëw ci mhm. euh, naka noonu ñu ma doon iñaane ñëpp xaabat xulaatee maal xusaadi samay bañ ak ñi ma iñaane sooy nañ kañ mus xemani xusdu bi la kasari ba nga xamee ne sama njëg jot naa ci la ma jaayante yàlla sama borom jox na ma njëgga te lëmbut booba la seen yaakaar tas sooy nañ lañ doon yéene jàpp ne damay perte man du ma perte daanay wax ne yàlla fegal na ma ci dara jaam wala ci daraja yonent bi alkande hmm. samam yaxantu it fa yàlla du lamb mukk li muy jëflante yàlla ton ju yàlla dig digg ñu waaju baax dana ma ko ci defal kon day sant yàlla ci eh, yi mel ni yëpp day dugg ci amma bi ni'mati rabbika fa haddith ah. ab jaam su ko yàlla joxee xéewal da koo sant mu waxtaane xéewal gi ah. at taxadduf bi ni'ma shukr la sant ah. yàlla la bokk na ci ni ñuy sant yàlla mooy xéewal nga waxtaane ko kon sëriñ wax ne yàlla defal na ma la ma jëflante moom jaayante kook moom jënd na ko te lambu amu ci kon yaakaaroon ne sama njaay day lamb wala damay perte seen yaakaar tas na Euh, yàlla musal na ma ci alkane it euh, li may yaxantu sama diggante mooy dara ci lamp loolu daal sibla mën nañ koo mën nañ koo tënk ci maanaam kaw mi xam ci béy yi lam ci jublu moom dëgg-dëgg nag moom rek moo ko xam ah. ak kum ko xamal radiallahu anhu jërëjëf sëriñ bi mu mel ne li ñu cërale woon ci waxtu jeex na kon ñu jox la nga tàggu ak bokk yi jërëjëf sibla xanaa sant rek mbokk yi doon topp jotaay bëgg ëtt bi ñaan sunu borom dafa ñu tawfeex dafa leen ko Euh, dafal ñu ak dégg ak topp hmm. ñu xam ne yëpp ay bokki jullit yu laayante biir lañ hmm. di dimbalante ci jaamu yàlla ndax jaamu yàlla suñu borom kenn du ko làmbatu kenn du ko tandu kenn du ko doxe doxe ay yëg-yëg kese waaye fastaqim kama umirtu la waxoon yonent hmm. jubal niñ la ko digle moo tax yu mel ni am solo ab jaam lu ko leerut mu laaj ko la ko ci lislaam wax mu tënku ci loolu mooy tax jariñu kon jotaay yu am solo la yàlla na ci yàlla defal barke def ci tawféex te jariñu ci jariñ ci mbokki jullit yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ bi yow tamit ñu ngi lay ñaanal suñu borom defal wér ak gudd fan ndax borom xam-xam la boo xam ne bu yéwén ci xam-xamam la bu yéwén ci labiré mbokki jullit yi la bu disponible tamit ci jariñ jullit yi ci li nga xam ne moom la ko yàlla xamal kon ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm Euh, di sant bokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci seen MKTV di seenu Muxaddamatul Xidma bu Grande Mosquée de Touba ci émission bi nga xam ne dañ leen koy indil weer wu nekk ñaari yoon muy émission gàggantiku tey ñi ngi woon fii ci Darou Salaam Ndaam di ci ànd ak mufti Serigne Mbacke Abdourahmane euh, kon mbokk yi ñu ngi leen di digg daje incha allah ci seen beneen jataay boo xam ne mooy jataayu émission gàggantiku ñu ngi sant mbokk yi Serigne Abdou Khadir Bousso Serigne Cheikh Diop di sant mbokk yi ñu doon topp yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh